asalaamualeykum mbokku Sédhiou mais maa ngi commencé am difficulté département bu ma dugg rek foog ni boobu moo gën a mobiliser kaca des mais bi ma yegsee fii à Sédhiou à une heure du matin gis ngeen taxaw di ma xaar yaakaar naa ni yéen a ngi ci kanamu gaay yi parce que guddi na nag ah mais ngeen toog di xaar ànd ak man jëlee ma ci buntu dëkk bi ba fii nii ñu ci ëpp daanaka di dox boole ci mbégte bu rëy bu may sentir ci visage yi loolu day wane cofeel bu rëy rëy mais ma bëgg leen xamal leen fu seen cofeel yam ci man sama bos multiplier na ko par cent par mille jëmale ko ci yéen très sincèrement je suis très très satisfait des responsables de Pape Moussa Kanté qui est là. Très satisfait de Oumar Dramé et de tous les autres. pour lim juum Sédhiou xam leen programme bi nga xam ni développé nañu ay cadre le Sénégal bon à vivre et beau à le sud dafa am une place importante bu mu am ci programme le potentiel que nous avons ici est un potentiel énorme un potentiel bi nga xam si c'est exploité convenablement tout le Sénégal et même au-delà de notre pays toute la sous-région mën nañ ci gis seen bopp et may prendre l'engagement solennel que bu yàlla defee le 24 mars 2024 Sénégalais yi tànn ma incha allah ce potentiel sera exploité ce potentiel servira au développement du pays ce potentiel permettra d'endiguer le chômage. Ce potentiel nous produira des emplois pour que nit ku ne ngay ndaw toll ci liggéey say waa kër yaakaar la nga mën a ci lu wér pour mën leen teral pour mën également di sa bopp ci biir Sénégal bu ma nee xool def nañu bare toog ndakaar def campagne mais dama ni Sénégal du Dakar képp fépp la moo tax ñu bërëg ma dugg biir Sénégal loolu moo ma conduire ba fii ma yegg si nii suba ma bëgg dugg incha allah Ziguinchor ak Bignona di am une satisfaction bi may ñëw léegi ci yoon bi ñu envoyé ma message ni ma mon ami et mon frère Ousmane Sonko a été libéré Sa libération a été mon combat de tous les jours. Sa libération a été un objectif et une priorité parce que ku nekk xam na ni Déthié Fall ca la muy dox moo tax bin ma ko waxee dama ci am mbégte bu rëy moom ak le candidat Bassirou Diomaye Faye loolu laa xam ci ànd loolu laa xam it ci taxaw ki nga xam ni dañ ko teg injustice le sud je le disais tout à l'heure bu yàlla defee ñu am ndam daa ngeen xam ni approche biñ ci am approche bu différente la jusqu'ici et bu ñu yàlla mayee ñu am ndam daa ngeen gis le changement bi ñuy wax au niveau de la transformation le changement bi ñuy wax au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de l'environnement changement boobu daa ngeen gis lu wér lay doon guddi na mënuma leen fi téye davantage dama ci am kersa sax d'ailleurs mais bu doon sama sago ma continuer ak yeen fii ba fajar mais ku taxaw di la xaar daanaka quinze heures ba une heure du matin kooku mënoo abuser de son temps gis naa bi ma duggee partout où je suis passé nit ñi yeewu daanaka ak seen ay pyjama pour ñëw accueillir ma pour ñëw tàccu ma mais loolu vraiment yegg na profondément ci sama biir xol di remercier tous les autres xam naa duma fi mën a yegg ñoom ñëpp muy Bunkiling muy Goudomp bu sama sago fépp ma yegg fa mais xam ngeen ni le président Macky Sall dafa wàññi campagne bi def ko douze jours douze jours pour nga def quarante six départements c'est quasi impossible moo tax foo ñëw rek ku la dégg rek na xam ni xol bi ak yéene bi cofeel bi même boo fa yéegul benn la ngeen dem nag le vingt quatre mars jël carte bi jël bulletin bi ngeen xàmmee ko bu baax moom la ñu yëkkati nii muy bulletin bu jaune bi am lu weex li ak costume bu nice bi nag ah bu leen ko bu leen ko la gentleman la c'est candidat jeune. donc ngeen bañ ko jaawale dugal ko ci urne pour que ñu pare gaay ci lu mu gën a gaaw ñu pare gaay ci lu mu gën sete ñu pare gaay ci ñu mu gën seddee ñu bagaajal leen ñu dem seen yoon kon loolu moo doon kàddu yi di dellu di leen gërëm di leen sant di leen wax à très bientôt incha allah jërëjëf jërëjëf jërëjëf